ami site internet net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek mbooloo mu takku rek la nemmeeku fi nga xamante ne avocat Ousmane Sonko mi nga xamante ne rek mi nga xamante ne rek cour dafa daal gàntal ne du doon candidat ci élection présidentielle ñu doon ma waral rek ñenn ci avocat mi nag defoon ab recours yóbbu ko fi nga xam moom mooy ci tribunal grande instance euh, ko fa rek ñu euh, détenu politique nga ñoom ndaw ñooñu nag ña taxaw nag ci buntu tribunal ba naam sax sax dañ ko daal di baare ak ay takk der waaye terewul nag ñoom ndaw ñooñu wuyu si nañ nag wuyu mat sëkk def mouvement boo xamante ne rek mouvement bu massif lay doon ngir dooleel kii di Ousmane Sonko ginnaaw rek buñ bañee ne duñ ko jox li nga xamante ne moom mooy fichier de parrainage am ba noppi rek ñu ngay sàkku nag ñu daal di koy bàyyi mu dem ñibbi këram ak képp koo xamante ne rek ab détenu politique nga du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi